mbokk yi dellusiwaat nañ tey ak yéen ci beneen numéro mu jëm ci conseil santé ramadan mooy yi nga xam ne wares na ko bàyyi xel ci sunu wér-gu-yaram ngir weeru koor wi nga xam ne ci la ñu nekk ñi ngi ak docteur Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Sylla mi nga xam ne mooy médecin chef centre santé daarul daarul naan muy waxtaan ak ñun tey ci ñi nga xam ne dañoo am feebaru tension nan lañu war a mën a def ci biir biir weeru koor yi muy dénkaane yoo xam ne dinañu ko baaxe bi bu baax ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu borom kër gi muy sëñ aatu ak njabootam yëpp di sant sunu borom bu baax nga xam ne may nañu ren gi ñu fekkee weer koor bi ñu ngi koy ñaan sunu borom ñu joxe ko nu mu waree ak nu mu ko bëggee te mu nangul ñu ko di ziar waa Touba yëpp question bi mooy euh, weeru koor ak koo xam ne danga nga amee tension loolu lu am solo la li ñuy baaxee suñu mbokki patients yi mooy euh, weer koor bi dikk na donc nit ki danga nga war a xam exactement est-ce que sa tension toll na foo xam ne war ngaa mën a woor wala waroo ko mën a woor loolu yaa ngi koy mën a am ci sa wetu docteur bi donc li may digle mooy képp koo xam ne yaa ngi doon fajoo feebaru tension li la war mooy balaa ngay tàmbale koor bi nga dem gis sa docteur mu seetaat la xayma deret bi xayma xool ba xam est-ce que dëgg-dëgg yow sa tension mun naa ànd ak koor bi ak garab yi tamit noo koy jëfandikoo ci weeru koor bi est-ce que ci suba si bi nga koy naan walla ci ngoon si nga koy naan ñaata nga ciy naan loolu yëpp lu am solo la parce que tamit ñàkkul ne am na ñoo xam ne suñu wooree seen tension artérielle day def modification mais modification yooyu dina baax yow balaa mu lay indil ay jafe-jafe sa docteur bi nattaat la xool bu baax ba xam est-ce que dëgg-dëgg garab yi ndax danga koy dolli wala fi nga nekkoon rek nga koy continuer donc li may ñaaxee sama mbokk yi patients yi mooy nañ farlu bu baax a baax di seet seen tension ba pare tamit bu bàyyi xel bu baax a baax ñam yi ndax ci biir ku wax weeru koor wax affaire lekk yu mel noonu donc bëri na ci ay ñam yoo xam ne buñ ci ko moytul rek mun naa tax tension bi déséquilibré comme lu mel ni ñam yi saf xorom loolu àndul ak tension wala ñaf ñam yoo xam ne euh, bëri na graisse lépp loo xam ne niin na comme ay yàpp yu duuf donc loolu vraiment lu ñu war a bàyyi xel la bu baax a baax kon nit ki bu fekkente ne da nga amee tension ñam yi mel noonu balaa nga ciy xër wala di ci jël lu bëri ba muy indi problème sa problème tension war nga ciy bàyyi xel bu baax a baax ala kulli xaal conseil bu ma mën a jox ci wàllu tension bi mooy nit ki na dem ci docteur am xool tension bi ginnaaw loolu ba xam ndax est-ce que garab yi da ci war a dolli wala nu mu ko doon naanee la koy continuer rek jërëjëf. mbokk yi kon mi ngi noonu dénkaane boobu tey la ñu docteur Cheikh Ahmadou Bamba si la indiloon mooy ñi nga xam ne dañoo am tension euh, di woor li nga xam ne war nañu koo bàyyi xel ci seen wér-gu-yaram jërë ngeen jëf ba beneen yoon.